assalamualaikum kilifa gi ziar nañ leen waaye di leen nuyu bu baakha baakha baax a baax di sàkku ci ñaan bu baax di di leen ñaanal yéen it yàlla sàmm leen aar leen làq leen fa yaq yeegul inshallah musal len ci yàqkat yi waaw man de big dafa am gentu bo xamanteni dama ko géntoon mais yow sa bop dang nga feñ yow señ Samba Ndiaye yow sa bop dang nga feñ ci gént yi parce que dama nekkoon ci benn gént boo xamante ne dama nekkoon ci benn bërëb bërëb bi maanaam euh, ci kat watu plage la nekkoon ak ay nit mu mel ni daal euh, ci plage bi dafa amoon genre bateau wala affaire boo xamante ne dafa nekkoon ci plage bi quoi léegi ñun nag en fait ndox daf ñu seq ci kanam ak ci ginnaaw mais ñun ñu nekk ci digg bi quoi ci plage bi mais ndox daf ñu si féete kanam fété ñu ginnaaw léegi ni ngi nekkee noonu ak groupe ñuy waxtaan jékki-jékki rek euh, waa ji ñu nekkaloon ne xool leen affaire baa ngi ñëw ñu xool géej gi gis genre vague tsunami yooyu di ñëw bi ñëwee nag di ñëw di ñëw ba jege ñu ñëpp ñu daw dugg ci bërëb bi genre bateau boobu nekkoon ci côté plage bi ñëpp daw dugg foofu pour làqatu léegi bi vague bi ñëwee dal ci bateau bi am sax fenêtre bu mu toj ñu naan ndox mi ndox mi jékki-jékki beneen vague di ñëwaat. léegi bi mu ñëwaat ñu dawaat làqu foofu vague bi toj ñëw dalaat ci bato bi mais ndox mi ñu féete ginnaaw ci beneen wàll bi ndox moomu moom dafa ni tekk foofu moom danga fay gis ay requin ay jën yu mag ay jën yu ndaw affaire yooyu ñu ngi fii nii ñu leen di gis nii mais beneen ndox mi nekk ci beneen wàll bi moom foofu moom la vague yi ñëwoon après nag par la suite euh, yow ci nga ñëw bi nga ñëwee nag tàllal sa loxo ci asamaan si taxaw ci bàgg bi taxaw ci euh, kii bi nu mu taxaw ci plage bi nii tàllal sa loxo ci ñaari ci euh, jàkkaarloog asamaan si ne vague bi du yegsi gaay nan la do jóge fi nga lan vague bi du yegsi ci katunu yalla de vague bi du yegsi bi nga talale sa loxo yooyu vague bi di ñew di ñew ni mi ñewé nonu tim la mais waccul dafa ñew rek cang nonu taxaw nga tim ko ni mais waccul nga naan vague bi de du wacc mais dafa taxaw cang nonu après jek jek vague bobu dem am benen vague bu jott encore di ñew di ñew di wacc wacc wacc wacc bay waajalaal suuf bi nga naan bii de du wàcc mais dafa après vague bi tamit delluwaat gént kooku daal gént nañ ko biig muy ndox mu bare bare bare bare euh, ñu doon sàkku ci yéen rek euh, ngeen gindi ñu ci loolu incha allah loolu sëñ du gént loolu ilham la ilham sëñ tubaa ngay jàngale ci masalikul jinaan dafa mel ni wax yu dafa mel ni wax yu te euh, na muy ñëwee day feeñe ci loo xam ne mën naa jur musiba fépp ndax ndoxum géej mën naa tukkal àddina ci lu mat ñaari waxtu kon lu mën a gaawe ci faagaagal noona sunu borom gént won ko ko mu yëkkati ko nga yëkkati say loxo mu taxaw mu yëkkati ko waat nga yëkkati say loxo mu taxaw kooku du gént de ilham la loolu yow yow moom lu mu sant sant yàlla yow yaa war a gën a sant yàlla yow Samba yow sa bopp yow yaa war a sant yàlla ci gént googu loolu yombul kooku yàlla du ko wone ci 10 milliards de personnes amuñu sansu yalla won ko ca kenn woné woné ko ca non bu démé non c'est grave ça ha ah. d'après li ma ak li ma xam ci ilham li moy ilham deug deug deug ndax danger ba réel danger public la mondial te non la mbass mi mel yëkëti loxo ga moy bu jëkk ga ñaaral yëkkati loxo bi moom gis nga ko waaye loolu ilham la du gént moo gën a for gént te eggul ci waxu yu waaye ilham la ndeysaan waaye ñu ngi sant yàlla bu baax te yàlla du ko jox du ko wane ci kudul borom xol bu set ku sa xol am dara dara dara ci lu bon ak kañaan doo ko mas am yàlla du ko nital ci yow du ko wane ci yow waaja ko gént tamit ku baax la ku yiw la ku sell la na gën a góor góorgóorlu ci sellam yàlla dina ko wan a may yeneen di ko ko won jëf félicitation encore isan yal na yàlla nangu ñaan yal na yàlla nangu ñaan yal na yàlla nangu ñaan jërëjëf